maymunata maymunatul mbakiyu maymunata maymunatul mbakiyu mbokk yi gannaaw bu nu sàbbalee sunu borom subhaanahu wa taala ci màggom gi julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am ngor nag yëkkati sunu kàddu ci lu amul benn deng deng ne jërëjëf sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuulillah di am mbégte lool ci turu famille sëriñ Modou Faty Khary te sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary nekk ca bopp ñu wuy si wooteb lislaam wooteb mbokk woote diine woote bu rafet te moo di lu toll nii ku ko sumb woola ne la kaa ñu ànd ci wax dëgg yàlla nga ñëw teew ànd ko ak ñoom gën ngaa rafet ay àndin dafa di kër gi ñu woo pour ñu ñëw ànd ak ñoom lu mel nii dafay kër goo xam ne tey ñépp teg na ko bët muy soxna Maymunatu bintul Xadim waaye nun ki nu boole ci yëf yi te amul ku moom muy sëñ Modou Faty Khary nag ba muy joxeñ Maymuna ngeen baal ma ci ku xamut bu ma ko woowee affectueusement Maymuna ndax cofeel ba ko sëñ Modou di joxeñ ñu bari gisuñu woon soxna Maymuna ba tax na ba soxna may munam sëñ Modou Faty Khary mii nga xam ne ni kenn mënu koo jël ci loolu ndax yàlla dogal nag dundam gépp mu jeexal ko ci wet soxna si bari na naam ñu tudde soxna si ay turandoo waaye nag tudde ko ñaari turandoo ñu bokk nekk ci kër gi di tarbiyewu nga jël sa yeneen ñaari doom yoo tudde ñeneen joxat soxna may ñuy ñent ci biir kër gi soxna may mu mi mën na koo kon mom sëñ Modou Fati Xari moom sëriñ Massamba ki nga xam ne nun sunu bokk ci sëriñ Touba moom rek lañ koy sant atomit dañoo doy sëkk walis lu mom moom ba tax na ba képp ku ko cëral rek danañ la won ne nag jot nga ñu tey keneen ku ko gannaawal ak ku man di doon nag bu boobaa dañ koy wan ne yëguñ na gane nga àdduna kon yéen ñi ko jëmmal ci conference bii nga xam ne nii li ci sëriñ Afé jottali ci ay kàddu kàddu yu rafet ndax ab jullit dafa am ñaar yu ko war a ñor te moom lan dégg ci wax ji mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tatabua athari nabii alayhi wa biko ñaarel moy di nap nabi ci alquran tadabbur ayatin quraniya te ñaar ñooñu liko yalla yàllay bëgg-bëgg gën nako bëgg ci gudd gu sel gi nga xamne ni moy mooy laylatu mi nga xamne ne mom la yàlla wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadri wala bu la neexee nga ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakah وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فودك دغ سيرين بي دي واخ رك ليك ليك داي واخ سي غوديغي با يا خير ضيف اتى بالبسر والمدد اهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا مكرم الضيف جار كان أوزارا يا ذا البشارات بالايات والصور bil ayati wa suwari weeru koor dafa mujj ala dawme ci kaw weer yi te am lu tax mu ala dawme moom te moo di guddi laylatul xadar bi yàlla dëxëñ ci biir nëbb ko ba amee guddi gi am na lu tax mu ala moom mooy alxuraan bi wàcc ci biiram moo tax sëriñ bi di wax banaan fii ka jaadalana bi laylatil qadri daatil fadli wa ragadi mbokk yi pour dellusi ci sama mission mooy njabootu sëriñ Modou Faty maa ngi nuyu bala ma koo fàtte njabootu sëriñ Afé gi ma fi fekk gépp ñoom ñëpp di ko teg ci loxo sama xarit sëriñ Cheikhouna mu jotalal ma ko ku ma xam ak ku ma xamut ci ñoom euh, sëriñ Cheikh li waral lii am solo mooy waa kër Serigne Affe ñu ngi koy def àdduna bépp xam leen ci amaan na bu ñu toogoon ñun du ñu xam ne ñoom ñaay ko waa kër Serigne Affe ñu ngi door a gisante gisante bu solonel bii kon ñi koy dox ci kër sëñ Modou ak ñi koy dox ci kër Soxna Maymuna Bintul Xadim ak ñi koy dox ci kër Serigne Affe wax dëgg yàlla seen communion bi seen jataayu tey bii bokk dogoondoo te mbusoo bi man fuuf ci ndox mi ah, lu rafet la lu yàgg war a am la waaye tey lay door am ñu di ko sante njabootu soxna Maymuna bi nga xam ne ñoo ko dox di ci góorgóorlu ba kenn ku ne ñu woo ba nga teew yàlla dogal nga daje fi ak sa moroom communion boobu door am sëriñ Cheikh nee na ak njabootu sëñ Modou Faty Khary gépp ñi ngi gën a tàllal loxo loxo boo xam ne mësta banque ndax wax dëgg yàlla ku jiite njabootu sëñ Modou Faty Khary ni ma ko waxee léegi mu am jamono yoo xam ne nii ci ëttub soxna may Maymunatu bintul Xadim ñeenti doomam yu jigéen ña nga fa di tarbiyewu kon loxo bi mësta banque waaye yeesal gi ko sëriñ Modou Mahfouz Mbacké yeesal ànd ko ak soxna Jaaratullaahi mam so bali soxna bali ñu jaarale ko ci seen dom di serigne abdou mi nga xam ni kenn la ci ñun serigne cheikh neena na nako bu baax mo waral rakkom yi di góor di jigen, mu xamal leen ne bis la bu wara japp bu ko kenn ciof na ñew fekk si soxna maymunatu ndax loxo bi ñu sëriñ mahfouz talal loxo bu musta banku la na sax kon bu ma ko sañoon nag damay continuer mel ne kuy wax nag ci guddi gi ndax guddi gi nag yàlla la soob mu dëxëñ ko yàlla sunu borom la soob mu dëxëñ ko ci bis bi ko soob dama ne sëriñ Afe junj na ko léegi danaa leen ko wax yàlla bu ko sooboon guddi gi sax du nekk ci laylatul xadar sëñ Sàmbay mu baax ma da daan wax ne yalla moy ki nga xamne da nan la suba jant du fenk nga xey suba jant bi ne dang te yalla mako waxon waxam du dañ ku ta xam loola rek mëno xam bis bi nek laylatul qadar bis bi soob yalla moy bis bi li njëkk yeme ci wax ji moy alquran wacce nan ko fi laylatul qadar mu melne intégralement ci benn guddi lañ ko wacce ata boy xol ñaata at wala ñaata fukki at moo am alxuraan di wàcc bis bu set mu wàcc mu mel ne boo koy misaal ku xamut loolu da nga ko naan dafa mel ne banque de données boo xam ne yàlla daf ko créer denc ko mën nga am sa site wala lum man di doon denc ca banque de données boo xam ma nga fa di nelaw mais créer nga ko am na waaye mettre ko ko en lii moom la sëñ Afé wax léegi yàlla indi ko ci denc ko ca umul kitaab lañ wax ba mu yàgg ñu ne denc ko wàcce ko ba ci baytul azza mooy asamaan si nu gën a jege denc ko fa di xaar nag ak suñu ñàkk solo gi circonstanciellement lu xew yàlla wàcce loola nag dal di koy feeñal ñu door koo gis ñun fekk na yàlla mi nga xam ne qada ak qadar ci loxoom la nekk yàlla dogaloon na démb ne événement bi dana am mu bind ko ci alxuraan dal di koy denc ca banque de données bi jour bi mu ko mettre en ligne mooy jour bi ñu ci jotee Muhammad génne ko mu nekk révélation bu ma nee baati révélation nag mooy texte sacré yi téere yi nga xam mooy téere yu màgg yi da cee am ay texte révélé am ci ay texte inspiré maanaam loo xam ne xadis lay xaw a tollool yàlla daal révélé nit mu wax ko ak lo euh, dafa inspiré nit mu wax ko ak lo xamne nak alquranul karim yalla moko waxal bopam wala serigne sambay neena na bu la neexee sax nga ne aw dakit la wu joge ci yalla kon serigne bi pour teje lima ubbe ta moy sama mission moy fami serigne Modou Faty Khary bepp te serigne Cheikh nek ci bop bi ñi ngi rafetlu diine bi ndax jotaay bi bokku na ci li nga xamne mën naa dundal lol guddi gi nga xamne yàlla neena nak khairun min alf shahr comme niko serigne afi wax nak khairun min alf shahr yemale ko sax ci junni wer da fay gàtt mi ngi mel bi yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam nan wuti len xam-xam même bu gen don dem ba Chine wuti leen xam-xam même bu ngeen ko doon wute ji ba siin duñ compter siin ñaata kilomètre la waaye dañ naan euh, siin boobu lil bordi masaafa bi moo tax mu utiliser baatu siin maanaam mi ngi mel ne sénégalais dañ naan euh, ku dem ba kor kolikoro wala ku wuti xam-xam ba jaamal soriwaay ga moo tax ñuy wax kon laylatul xadar ngëneel li yemut ci junniy guddi waaye yàlla def ko misaale ab arab buy muslu ci dara sax danaan maa ngi koy muslu bi alf alf la hawla wala quwwata illa daal sëriñ yow mi toogee jataay bi njabootu sëñ Modou Faty gépp ñu ngi lay xamal ne rafet lu nañ jataay bi tàmbali nga loo xam ne nag yàlla nañ ko mën a eggale te ànd ko sunu doomu ndey yii muy waa kër Serigne Affe Bousso nga xam ne ñoo bokk xemmemteef ci guddi laylatul xadar mel na ne wane nga yoon daal ne war nañuy gise gise bi am na tey kon yàlla mën naa dogal fi ñuy séentu ne euh, synergie maanaam énergie yu bari kenn ku ne euh, teg sa njëf fenn war nañoo mën a créer loo xam ne nii bis bu laylatul xadar yëngoo ci Touba lii am tey du mat asakay li war a am ci laylatul xadar te ñun ci loolu rek lan doon dox ndax ku daan def laylatul xadar ci kër ba mu yàgg nga yóbbu ko ci mbedd ba mu yàgg xëjatu fa nga dem ci dëkk def ko fa bu laylatul xadar jotee daaru karim débordé wax dëgg yàlla xam nañ ne ku ñu ci woo ñun sawar nañ ci lool ndax fi ñu jëm ñeme nañ ci loolu ñeme nañ ci loolu kon nag soxna may muunatu bintul xadim sëriñ Modou Faty Khary mbakke moom sëriñ Massamba Lo ak sëriñ Afe suñu nijaay suñu kilifa yal na yàlla defal seen njaboot barke yal na yàlla barkeel njaboot gi yépp yàlla barkeel njaboot gi yépp ah, xam naa bu ma doon wax ba suba du doy waaye sang bi ahsantal eh, eh, al idaara maa ngi lay ñaanal ñun ñëpp yal nañ eggee eggale suñu sago liggéey bi rafet na tegu na ci xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu sama kilifa yi ma àndal te sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ Modou Fatikan yi nekk ca boppa ñu teewal fi sunu kilifa. di xalifab sëriñ Afiya Bousso muy sëriñ Alxaaji Fàllu Bousso mu yebal mu ñu ñëw wuy si woote boo xam ne woote mbégte la woote bu rëy la ci lislaam waaye woote bu la bu rëy la ci yoonu murit di loo xam ne mbégum képp ku bëgg lu baax la muy bis bii nga xam ne ñu ngi koy waajale fii ci kër soxna Maymunatu bintul Xadim sëriñ bi di nuyu kilifa kër gi di as cheikh Mouhamadul di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu mottali mboolem ay yéeneem mottali itam yéene kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la wutu di nuyu it ak di soxna bali mom soxna Maymuna momit diko ñaanal mission bu am solo bi nga xamne mom la soxna si bàyyi ci loxom sun borom tepp ko katan tepp ko wer may ko fan mu gudd ba mu agale ko fa ko bëgg agale fep waye nuyo bobu nak serigne abdou Abdul wax ne ñu jaarale ko ci serigne Abdul Ahad mbacke gayne Fatma mi tok nga xam ne mën nañoo wax ne woote bu am solo bii ak xalaat yu am solo yu tedd yi nga xam ne kilifa yi ma jiitu di Seex Muhammadul Yadaali yi ak Sëriñ Abdou Samad wax nañu ko xalaat bu rafet bu am solo boobu ñu ngi bàyyi ko ci moom te mu doon koo xam ne xalaat yuy doxal yoon wi di ko jëmale kanam di ko gën a rafetal yàgg naa jaare ci moom macha allahu taala di ko ñaanal moom it fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko jottali loo nuyu rakkam yu tedd yii nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi te ñoom ñëpp di suñuy xarit di suñuy wëlëre ñu ñëw nag ci turu sëriñ Alxaaji bu Buso ànd ak délégation bu am solo boo xam ne xëy na waroon dafay ëpp lool waaye li ko indi mooy ak daje dafa am ci bis bi muy ñetti xew yoo xam ne dafa dajandoo ci suñu kaw te fenn fu nekk ñenn ci njabot gi war fa tew sëriñ bi sak ay ndaw barab bu ne ña fa wara dem dem fa loola motax délégation bi tollut na mu waroon a toll kon dañ fi gëna bari ñi ngi leen di ziara bu baax di leen ndokkel di am mbekté nak ci ndaje mi nga xamni mom lañu dajé tay ji ci barab bu tedd bi ci xew-xew bu am solo bi nga xamna mom lañuy def di rafetlu lolit nak rafetlu go xamne ak rafetlu mënu ko fété kaw ndax yëf yi du ñaar du ñett lenn la lépp ci biir kër Serigne Touba la amul ak xàjjalikoo te mag ñi ko jiite woon itam amuñu woon ak xàjjalikoo te du ko mos a am ba mukk li am solo rek mooy xëy na ku ne yaa ngi dundal ci barab waaye ñoom ñëpp lenn rek la ciy dàkk mooy ngërëmul Serigne Touba ngërëmul Serigne Touba loolu ñu ciy dàkk nag kon day wane na ñoom ñëpp ñoo bokk ak bëgg. ñu bokk ak bëgg nag ñu ne ñoo ñu wax ne ñoo bokk ak bëgg suñu mënul a ànd am na ku ca wax lu dul noona kon yaakaar na ne woote bi woote bu yomb lay doon ànd gi itam ànd bu yomb lay doon te bu rafet lay doon euh, ñuy rafet rafetlu itam jataay bi lool di rafetlu waxtaan bu am solo bi nga xam ne ki ko doon def mën na noo wax ne ci ñun la bokk ndax noo bokk maam mii di sëriñ Afia bu sax muy sëriñ Afia ñag ci loolu sax ñu ngi ciy jaar di nuyu sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abdou Wadoud mii moom itam mën naa bokk ci ñun ndax noo bokk maam mi di ko moom itam waaye ñuy wax ne du ñu delluwaat ci li Cheikh Mouhamadul Yadaan yi wax ak li sëriñ Abdou Samad wax ndax kon day mel ne wax waxaat lay doon te kon day mel ne woote gi ñu doon woote lu bennoo wax yi da koy dàq kon ñoom demaale nañ ñu géew li ñu waroon a wax ci ak rafetlu ci biir mbir mii ak woote bu am solo bi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad woote na ko loola day dugg ci biir kàddu yi sëriñ Abdou Samad dugg ci biir kàddu yi Cheikh Mouhamadul Yadaali kàddu gi genn rek la daanaka ku ci xasoon wax rek mën naa waxaale ñépp ndax noonu la deme ñu fi teew ñépp ku ci wax mën naa yóbbaale ña ca des ndax lenn rek la kon kaddu yi mu gudd mu gàtt kaddu yi cant la kaddu yu ngërëm la di wax nag ne bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy màggal noonu dey ndigal li mi ngi bàyyi ko woon ci Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke na mu ko diglee woon it mooy moom moo sàkk bis bi biñ koy def muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor yeble fa ñu fanaa ñu jàng fa alquranul karim ci guddi gi mu Eh, yabal fa ay jankat ñu fanaane fa jang xasiida bu barset mo fa yónneel bopam aw nak ak teranga yañ fay wara def yeb defal ko bopam ba mu ba lepp ak mu tambale di suba gi ba fanaan ba barset lañ fay def lepp mu def ko ba mu xeye mu wo njabot gi ne len yoon wa ngok sa bu excété defee ko ni lola motax ñu saxal ko ci bis bobu ginaaw mom moko tanon bis bi def ko jëm ci aw definam waxit ne saa bu ak seetee saa bu ak seetee jooju moo tax ñu saxal ko ci bis boobee waaye du loo xam ne dañoo tànnal suñu bopp bis ne bis sàngam la ñuy def wala waxtu sàngam la ñuy def loolu njaboot gi nekkuñu foofa njabootu sëriñ Afia fi ñu nekk mooy fu leen sëriñ tubaa joxañ foofa la ñuy sax ba la leen fa mën a jëlewaat mooy kàddug sëriñ Touba moom mooy la leen fa kon nag fii ak kàddug sëriñ tubaa di ñu jëlewaat foofee foofee ñu sëriñ Touba joxañoon foofa la ñuy nekk ca loola lañuy ñuy nekk te jàpp naa ne mbooleem ñi ñu seqal liggéey bii bokk ak ñoom teew ci jataay bii loola mooy la leen bàyyi ca la nekk kon la leen bàyyi fa ñu ne bàyyi leen ca la lañu la ñu ne moo ñu bàyyi fi ñu nekk moo ñu bàyyi ci lu ñu nekk kon lu ñu mën a def lu may rafetlu jataay bii sant ci bu baax a baax a baax a baax nag sëriñ waaye di amaat meneen mbégte nag mbégte bi mooy sëriñ Abdou Lahad ñi ngi lay sant bu baax ndax kuy liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal ci ëttub Soxna Maymuna fonk xam-xam ak dundal xam-xam war na la waaye wax dëgg yàlla gis nañ ni comité d'organisation bii de ba nga ko jiitee ba léegi yaa ngi jëme kanam yëngu-yëngu yi ci wàllu xam-xam bu baax a baax a baax a baax te loolu bokk na ci li koy firndeel téere bii nga xam ne tënk ngeen ko ci waxtaan yi nga xam ne ñoo doon jàll ci yu wees weesu mu doon loo xam ne day tax lañ ci doon def sax béel ba faw ndax téere moom lu àdduna yàgg-yàgg mu di fi nekk ku mujj a ñëw di ko xool ñun ñu ñëpp ci ay téere lañ jànge te téere yooyu kenn xamul kañ leen lañ bindoo kon nag lu am solo jëf ju am solo jooju nga def moo tax ñun bi ñuy ñëw ñu gisoon ne ñi ngay dundale xam-xam ci bis bii ak jëmmal gi ngeen koy jëmmal woote boobu war nañ leen cee moo tax li ñu tënkoon ci ay wax bu doonoon lu gàtt ñu tënkoon ko ci genn ton boo xam ne mooy doon tontu li nga xam ne moom lañuy tontu ci woote bii di dellu nag di santaat di gërëmaat njaboot sëriñ Modou Fatou Khary fi teew di leen wax ne loxo boobu ngeen tàllal fekk ngeen ñu ci ñun itam leen ngeen leen ngeen ñu te fas nañ ko yéenee ànd ak yéen itam incha allahu ila abadil abad wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñu boroom mi nga xamee ne moo ñu xéewale waat ñi fekke waat bis bu tedd bii ak guddi yu tedd bii di ñaan lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla suñ borom nangul ñu ko te fekkee ko ay déwén yu bari di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jëmale ci képp koo xamee ne bokk nga ñun jataay bu tedd bi wala nga ñuy déglu di leen nuyu bu baax di leen ziyaare bu baax di leen ndokkeel bu baax ci waxtu wu tedd wi ak ci place bu tedd bi kàddu yi ni ko serigne murtala sille waxe dañ ko yëkkati ci turu serigne Cheikh Abdou mi nga xamé ne mo jité comité d'organisation bi te mata ko sëkk ndax organisation bi lépp ci loxom la ko soxna balé ak Cheikh Mouhamadul Mahfouz teg ci loxo waxtaan yi ñuy def nii ak muxaadaraat yi yépp ci xelam mu rafet la kon dañ ko ciy ndokkeel bu baax di ñaan suñ boroom dëgëral ko mu yàgg ci loxoom te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom kàddu yi nag kàddu yi cant rek ak kàddu yi ngërëm la dañuy tàmbale cant gi ak ngërëm li ci ki nga xamee ne moo doon def waxtaan bi di sëriñ Afia Ñang sëñ Afia Ñang ku ne xam na ne dundam gépp ci lislaam la ko jeexale ak ci xam-xam ak di ko tasaare rawatina njàngalem sëriñ Touba. man moom dama cee amuk xaas ndax dama ab sama ustaas la damay jël bind ci moom lu bare bare bari kon ñu ngi koy sant ci turu sëriñ Cheikh Abdou ci waxtaan wu sell wi nga xamee ne def na ko te mu kawe njort di ñaan suñ borom dëgëral ko ba lim yéene liggéey ci xam-xam ak ci tasaare njàngalem sëriñ Touba. suñ boroom àggale ko di yëkkati kàddu cant di ko jëmmale ci suñu gan yu tedd yii nga xamee ne wuyu si nan ñu gën gaa rafeti wuyu si ndax suñ boroom moo wax ci alquran ne yaa ayyuha istajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuxyikum wuyu si nan ñu gën gaa rafet ci wuyu si wuyu si boo xamee ne wax dëgg yàlla kawe na suñ njort ni ko Cheikh Abdoul Ahad bu su waxe mbir mi lépp lenn la mbir mi lépp lenn la guddi gi guddi gii nga xamee ne dañ koy dundal ndigal li ñoo bokk fu fu mu jóge sëriñ Fàllu moo jox ndigal sëriñaa Afiyatu Buso mu koy dundal waaye itam moo jox ndigal soxna May Muutu Mbàkke mu koy dundal sëriñ Moodu Faati Xari moom it ku ne xam na ni mu demee woon ak soxna May Munatu Mbàkke du jar ma ci sunu yaay jee du tedd jee toog di soxna May Mbàkke rek doy na ci firnde kon lépp lenn la lépp lenn la li tax ñuy dundal guddi gi weesuwut sàkk ci ngërëmul sëriñ Touba kon bu Cheikh bu amee initiative bu rafet bii ni mu ko waxee ci biir rek yéen a jëmmal yéen ko jëmmal yéen a ko saxal kon ñoo ngi leen ci sant cant goo xame ne ci sunu xol lañ ko tibbee di ñaan lépp loo xamee ne suñ boroom digg na ko ci ak jokk mbokk ak bennoo ak ànd lépp loo xamee ne suñ borom digg na ko ci yàlla nañu ko yàlla na leen ko suñ boroom jox ci barkeb Sëriñ Tuubaa ni ma ko waxee rek li tax ñuy woote mooy danoo woote jëme ci jaamu yàlla jëme ci dundal xam-xam jëme ci tasaare xam-xam te woote nag woote boobu woote gënu koo màgg suñu boroom ni ma waxe ni ma ko waxee ci aaya bi dane yéen ju yéen way gëm ñi na ngeen wuy ji buñ leen wooyee ci loo xamee ne da leen di dundal jataay mel nii dañuy dundal rawatina dundal sunu ruux ndax ni sunu yaram di soxlaa dund sunu ruux moo ko gën moo ko ëpp lu mu ko soxlaa ndax yaram moom man noona wax ne ci àdduna la yem waaye li nga xamee ne day sax dàkk nag mooy sunu ruux te jataay yu mel nii rek lan koy dundale ci jaamu yàlla ci jataayu xam-xam ci tudd yàlla ci loolu rek la suñu wax di dunde kon kàddu yi mënta weesu kàddu yi cant rek kàddu yi cant rek la ak di leen tàllal suñu loxo di leen wax ne lépp lépp rek lenn la ñoo bokk Eh, liñ jublu ci dundal gi ño bok fu mu ño bok lu ci sakku motax ko wara and kon eh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci wuy ci bi nga xamé né wuy ci gën ko gën ga rafet ak wuy ci ci kilifteefu serigne Cheikh Mbacke mu serigne Modou fatih Xari ak sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Fallou Bousso mi nga xamee ne mooy xalifa sëriñ Afiatou Bousso ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant itam mbokki taalibe yi nga xamee ne ñoom it ñoo ànd ak euh, sëriñ bi ak soxna Bali bis bu tedd bii di leen gërëm ñoom bu baax ndax ku ne xam na ne jamono ji xat na waaye dañoo bàyyi seen lépp ñu ànd ak ñun bis bi di sant yi itam ñi nga xamee ne ñooy jàllale waxtaan wi di journaliste yi ñoom it man noonu wax ne li ñuy def fardu kifaaya la bu bu ndax am na ñoo xamee ne euh, fekkiwuñ jataay bi waaye ñu ngi koy ànd ak ñun kon loolu tuyaaba ju rëy la euh, kon ñi ngi leen di bàyyi loo xam rek ne jataayu xam-xam yi nga xamee ne dañ ci waajal bis bi day wëy di continuer suba am ñu ngi koy waajal ci kër soxna si jagleel ko di waxtaane ci xaside yi sëriñ Tuubaa yi sëñ Ahma Daaru Muxti moo koy def ginnaaw suba itam moom it ci kër soxna Baale lay doon moom it ñi fay waxtaane yaakaar naa ñi de ak colloque boo xamee ne ci xam-xam lañ koy def moom samedi la le moom it colloque boo xamee ne dañ koy def ci crise bi nga xamee ne moom la njàngale mu réew mi am ana eh, am na njàngaleem daara naka la mën a indi ay saafara ci crise boobee dimanche itam mooy bis bi nga xamee ne dañ ko jagleel waa kër Serigne Touba yu jigéen yi ren ñu tudd ko soxna Mariama Kunta talaata itam noonu la conférence bi nga xam mooy ci conférence mag yi la bokk te jagleel ko sëriñ Mouhamadou Moustapha moom it fii lay doon ci asalam euh, àllar bi itam moom lañ jagleel jigéen ñi ñu koy defee ci kër soxna sax kon waxtaan yi waxtaan yu continuer lay doon ba bisu laylatul qadr ñu ngi ñaan ñi ñu ñu ñu àggale ko ñu àgg ci ak jàmm te lépp luñ ci def euh, sëriñ euh, suñ borom nangu ko ci barkeb sëriñ Touba te itam suñu kilifa yi tedd yi nga xamee ne itam euh, ñooy taxawu bis bi di sëriñ Mouhamadou Mahfouz ak soxna Bali suñu borom yàgg leen fi ba lépp loo xamee ne yéene nañ ko ci bis bi ñu mottali ko ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi sant ñëpp euh, di ngërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maymunata maymunatul mbakiyu maymunata maymunatul mbakiyu